you. amis internet d'Étoile TV Sénégal mbokk yi ñu ngi leen di nuyu jaajëfal leen bu baax a baax a baax ñëwaat ak yéen ci li nga xamante ni mooy la vrai visage émission bi nga xamante ni moo neex ndaw ñi waaye tamit émission bi nga xamante ni moo neex mag ñi tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i facette ñëwaat ak yéen ci beneen plateau euh, ñu ngi invité ki nga xamante ni mooy le jeune populaire macha allah euh, son vrai nom Cheikh Ahmed Tidiane Meng alias Big Kheuch nekk rappeur dëkk fi nga xamante ni moo di Tivaouane moom lañ seqal waxtaan euh, waa rédaction Étoile TV ñëw tey seet ko mais balaa ñuy dugg ci waxtaan bi dañ koy daal di jox मुनियों nuyu mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñuy suivre à travers Étoile TV Sénégal ñu daal di mën a dugg ci waxtaan bi bi xëcc maa ngi lay nuyu di la ziar. yaa maa ngi lay fay di la ziar lu bëree bëree bëri. waaw di nuyu mbokku àdduna mooy loolu noonu Étoile TV ñëpp ñu ngi seetaan. Mm-hmm. waaw di leen bëggee lu bëree bëri di leen jox seen wàccuwaay nag. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, maa ngi lay dalal bu baax fi nga xamante ni euh, mooy le vrai visage euh, comme je le fais chaque fois sama première question de vrai visage toog nañ un bon jour gis un jeune. macha allah di def li nga xamante ni mooy rap euh, lan mooy sa ambition bi nga xamante ni moo moo tax nga dugg ci rap balaa muy ñëw ci le vrai visage. yeah rap bu xol bi bëggul amul dafa feeñ ko mm. parce que ñoo ko doon fooyee tout le temps mm. mooy loolu noonu bu ñuy jàngi mm. lépp lu ñuy def rek rap la quoi moo tax ñu dugg ci rap waaw. moom ñu diggee naturel rek mooy loolu noonu ñu dugg ci facilement. Mm-hmm. waaw eh, mais au fond est-ce que mën nañoo xam kan mooy euh, nga xamante ni mooy mooy mooy Big rush. Mm-hmm. Euh, au fond par exemple ñu jox la benn une minute ou bien benn deux minutes nga présenté wu wax yow la kan en fait. yaa Big rush Big Rich benn jeune talent la ah. mm-hmm. benn boy bu ndaw mooy loolu noonu. waaw nekk ci town bi di ko yëngal gars yi Big rush Big rush mooy loolu noonu mais Big rush mooy ñëw sama neem. Cheikh ku tudd Cheikh moom xës lañ lay wax waaw ñu yokk ci big bi quoi big ci mind mm-hmm. big ci bind quoi mm-hmm. ñu yokk ko ci après affaire yi nice quoi mm-hmm. boo dox ci town bi big xës mooy loolu sa vrai sax doo ko dégg waaw big xës mooy noonu quoi comme loolu euh, d'accord euh, dégg nañ li nga wax kontaan nañ ci bu baax ba baax mais bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu seetloo euh, jeunes yu bëri dañu dugg li nga xamante ni mooy mooy milieu rab bi te milieu rab bi ku ne xam na ni am na ay conséquences yoo xam ni mu ngi ci ban ban ban ban jàngat nga am ci loolu yee waaw loolu noonu am na parents yoo xamante ni nanguwuñ ko parce que rab daa xaw a nii quoi ñun loolu noonu debi bi day metti quoi début bi day metti parce que parents yi duñ bëgg nga dugg ci mm-hmm. mais au fond boo demee ba ci biir ñoom ñu xam ne yow li ngay daj pour rab quoi mm-hmm. après dañ la ci dañ la ci si mm-hmm. waaw pour man loolu noonu moo tax gars mais dara nous hein, dañuy facilement après amul wow waaw euh, famille euh, certes yaa ngi def bi euh, au début sa parent sa yaay sa papa mhm. comme ni nga ko waxee euh, rab dafa nekk loo xam dafa indice mhm. dañ naan affaire agresseur la mhm. xam nga gars dafa indice est-ce que problème yooyu noonu euh, conséquences yooyu noonu dund nga ko waaw dund naa ko dund naa de waaw parce que bi may bi may jawitee maa ngi doon freestyle di yéeg ci seen yi mhm. mais benn jour benn paam moo ñëw fii nee na ma yaa yaa ngi yaa ngi yëngal internet bi mhm. après boo am naa arrière pensée boo xamante ni lool noonu la bëgg a wax quoi après paa bi nit ma génneel mhm. parce que génneel ma xool quoi après ma camoufler loolu noonu aju ko ninu ko man defuma dara après bi mu demee nag bi mu toogaatee ci la gisaat beneen esati gars yi mm-hmm. dugal moom mooy loolu noonu mm-hmm. après mu woo ma mm-hmm. nee ma maa ngi lay gis bi ma génnee son bi tamit tegal naa ko ko am na tamit lu ma ci yokk am na lu ma ci wàññi mooy lool noonu loolu la ma dikkee euh, d'accord mais ban moment nga toog ni pour ni sant bi moom damay jublu ci li nga xamante ni mooy mooy mooy rap galsen ya rap galsen sama jublu moom deux mille dix neuf la quoi laa xam ne man damay def damay def carrière quoi mm. parce que début bi maa ngi doon fowantu mooy loolu noonu mais deux mille dix neuf laa préféré génne sama première sound mm. bi ma ko génnee nag après am naa ci benn benn rendement boo xamante ni dikkal na ma ko quoi parce que gis naa ci gars ñu ñoo ngi attiré ci son yi mooy loolu noonu di ko déglu di ko cons mm-hmm. laa xam ne man mi waaw kon amatuma lenn lu ma nekk fii nii di ko seral ko mm-hmm. damay ñëw rek jublu sama carrière waaw mm-hmm. noonu la fa demee euh, jublu sa carrière boobu falaay falaay falaay ñëwee ak yow euh, wax bëgg nañoo xam ñu bëri ñu ngi gis Big Xeuch mais euh, tey dañoo ñëw pour leeral Big Xeuch titre yi mu def bi xës clip yi nga xam def na def def na ko mm-hmm. loolu yëpp dinañ ci dinañ ci def li parce que fii le vrai visage mm-hmm. dañuy gis la nga xamante ñi xamuñu ko woon ñu découvrir ko mm-hmm. mais bi li nga xamante euh, concert yi nga xamante ni am fi nga est-ce que mës nga génn hors nga jouer foofu ay concert ou bien Tivaouane rek nga yem. waaw joué concert yëpp. presque joué nañ concert yëpp ci année bi mooy loolu noonu génn nañ ci dem nañ fi ngaay dem nañ fi cees waaw ñoo ngi génn daal mais génn bi demeewu fa noonu quoi mais sant yàlla waaw essence yi moom ah, amatul lenn concert buñ fi lii quoi essence ñoo ngi xalaat génn yeneen side yeneen hors secteur dem ci banlieue bi gars yi mën ñu fil carrément parce que talent bi mu ngi fi quoi. Mm-hmm. waaw talent bi mi fi ñu ñew ci nga xamanteni moy sa premier titre. Mm-hmm. suma ma moy euh li si xaar nako ko mais li si xaar nako dafa nek sound bo xamni gaay dañ ko bëgg. Mm-hmm. concert yi lepp bi xëc li si xaar gaay di ko di ko yuxu di wax pour nga pour nga pour nga priser len sound bi. idée sound bi fu mu joggé ya idée sound bi mu ngi 2017 ans ma nekk benn internat après ci laa xalaatoon li xaar naa ko titre bi kase. internat comme waaw internat bi dañ ma fa yóbbu woon pour ma jàng mooy loolu noonu. Mm. après ci laa xalaat nii ma toog doon di fowantal li si xaar naa ko eh, gars yi mooy loolu noonu gars yi di ko balagee après man lii nii dama ciy def sound mm. parce que idée bi daa garaaw quoi li mu ëmb moo graaw ma ne lii nii dama ciy def dama ciy def sound quoi hmm. après ci laa jógee foofu noonu tawal benn un an hmm. deux ans ma lii nii pourquoi pas ma ñëw def ko sound comme que doon naa ko xalaat quoi ci laa commencé daas bi bi mooy loolu noonu mu ñëw naturel ñu def ko après gars yi bëgg ko ah di ko show love concert ma dem gars moom lañ may laaj waaw euh, li si naa ko comme li ma la wax sànq nekk sound boo xam ni macha allah dafa neex ñëpp mais est ce que mën nga ma ñëwal ci quelques paragraphes après ñu daal dem nga faram fàccee ma ko wax ma lan nga fa bëgg a wax yeah foog ma fi ku faay nigga sama waa ñoo ma sëf coono liñ may tegal raay tëll MC sukkal nga tarbiyu bi mission sas la ceebu njaxas la foog ma siif gëdd wane li ma bëgg dox rek dëgg wax ji lenn la mun ma bàyyi ram ndax dafa dee ci man kon tukkat ak tabaa noonu la bekkaay mbay mel ci baa di bind raam yu dul mës a jeex di ko sotti maañ bu dul mës a fees di yàgg dégg booy gëm ko rek dina mës a baax mi gëm ma loolu sama yoon tekki ku ci nara kenn waru mën a téye double H bi mooy suma yi téye. gars yi dafa mel mi ngi baax de. li si xaar naa ko ci résumé. yaa li si xaar naa ko benn benn son la Eco Trip. Mm. di wan ni gars yi mooy loolu noonu. sama koona am na luñ ma sëf am na loo xamante ni mm. daa nekk ci man quoi mm. comme tuxkat ak taba Bécaye Mbaye moom ni mu mel ci bantamba moom ñëpp xam nañ ko moo tax man la rab bi comme tuxkaat ak tabaa ci man quoi mhm. parce que instant yi nii engagé nañ amatuñ lenn lu ñuy reculer quoi te li si xaar nañ carrière bi nan la fay demee xam nañ ni carrière bii nii mhm. carrière bu war a jaar yoon la mhm. carrière boo xamante nii maanaam benn ligne droit la ñu lesi xaar ko après mu jox ñu loolu noonu après ñun ñu appliqué ko waaw noonu ñu jàng ñu jàngat ci li nga xamante ni mooy sa rab dafa bëri ay touche ngay jël fii jël fii jël fii peut am nga koo xam ni mooy sa idole wala ñenn ñoo xam ni ñooy sa idole. Mhm. yaa loolu loolu am na loolu am na parce que naturel la ma dikkee ah, loolu noonu damay jékki saa man bu may rab du du mu bàyyi sax xel ni maa ngi këf fii wala maa ngi lii technique yeeg yooyu noonu man damay rab rek parce que rab rab la rab rab laa taamu quoi. moo tax mais am na samay idole yoo xamante ni mm. ñoo ngi Sénégal mooy loolu noonu am na ñoo xamante ni ñooy extérieur. est mën nga ciy lim ay tur. yaa fii nii mm. ay Kalif bu under chief mm. ay Papasa mooy loolu noonu waaw fenn yi boo demee kaaw ba nii am naa fa ay Da bi ay Lil bi waaw ñoo noonu samay idol lañ. bëgg naa mel ni ñoom. Mhm. noonu la fa demee. est-ce que du loolu moo tax bi xëcc ak bruit bi macha allah ak populaire bi bu demee concert ñi nga xam ne ñooy nekk ci ginnaawam ak feu muy indi kon touche bu li nga li nga comme comme fi nga waxee nii kon loolu moo tax nga nga indi touche boobu. yaa parce que dala koy jaraw quoi lenn boo ci nekkee. Mhm. da ngay da ngay da ngay soxla public bi parce que gars yi am na lenn looy dof rek boo amul public gars yi duñ la duñ la bàyyi xel quoi mooy loolu noonu. Mhm. bu ñuy bu ñuy joob dañuy joob loo xamante ni maanaam day attirer public bi mm-hmm. ku ko déglu rek day xam ni kii nii mooy loolu noonu mm-hmm. li muy def daa nice quoi après loolu noonu da lay mën a xëcc mm-hmm. parce que tamit am na sa idool yi boo leen xoolee da ngay xam ni ñii nii maanaam tracé nañ la yoon bi ba pare yow da ngay ñëw topp seen tànk rek mooy lool noonu waaw noonu la fa demee. mais nga ñëw nekk booy bu ndaw nekk fi nga xamante ni mooy mooy mooy rap Galsen bi macha allah ñëpp bëggal la bëggal la seen bopp ndax liggéey bu am solo bi ngay def mais ñu critiquer comme li ma la wax rek ñi nga xam ne ñooy topp sa ginnaaw mhm. parfois bi nga demee ci concert yi fa bi gars sa booy biru yi ñuy indi yooyu aussi est-ce que doo ci bàyyi xel yaa loolu noonu dama ci bàyyi xel gañ dama ci bàyyi xel mhm. parce que maanaam am na nit nu muy ñëwee rek mhm. gars yi dañ lay dañ dañ lay dañ lay gedd quoi mais am na nit nu muy ñëwee rek gars yi dañ lay bëgg mais maanaam bu ma ñëwee ci concert nii booy li ñuy def noonu loolu forcément la maanaam seen artiste moo ñëw ki leen ki leen ki leen ki leen di showloo quoi ki tax ñoom ñuy yëngu mooy loolu noonu mm. benn bi xës moo tax tey bu ma ñëwee concert gars faw faaw ñu yëngal faaw ñu def flamme yi mooy loolu noonu mm. waaw loolu la bi xës ah c'est que ñëpp jaamu mooy loolu noonu. Mm. Euh, tax sa paragraphe paragraphe be ci sound bi dégg naa nga ni su ma juumul euh, rappeur nañu pare Euh, xam ma am na noo ko waxee. waaw yi nañ pare ndax waga bee dugg si. Mm. waaw noonu la fa demee parce que rappeurs yi xam nañ ni mooy loolu noonu quoi. Mm. bi xësu yi nii mm. amul lenn lu muy lu muy arrière pensée quoi dañu ñëw rek waaw. Euh, tàllal quoi. ñu seetlu sa sànq ni aussi bëri na ay ñàpp ay xam Adamo. on peut on peut dire Adamo comprendre mm-hmm. waaw saaga yeeg affaire yooyu est ce que est ce que yooyu mën na ñàkk. yaa mën na ñàkk mën na am ah. ah. mën na ñàkk mën na am. ci kaw maanaam li ñu gis ci hip bi neex ñu mm-hmm. bu ñu neexee mm-hmm. day ñaaxu quoi mm-hmm. mais bu ñu naqaree nii faaw ñu jug tamit mooy loolu noonu wan ni booy li ñuy def nii dàqu ñu ko ëpp ñu ñu talent ëpp ñu ñu flow ëpp ñu ñu technique quoi moo tax ñu ñëw appliquer loolu noonu après ku bëgg clash benn bi xës da ngay da ngay ni kii nii maanaam boo ko clashé après li la ci fekk moo tax ñu ñëwee facette boobu noonu mais am nañ yeneen facette mm. yow gis nga ko mm. waaw noonu la fa demee mm. damay am kontaan di toog ak jotaay mm-hmm. ñi nga xam ne dañoo mel ni yow ñu am benn jàngat boo xam ne jàngat nañ ko ci li nga xamante ni mooy rab galsen bi mm-hmm. da dañoo gis souvent euh, da ngeen di clashante di saagante mm-hmm. loolu noonu clashante bi ak saagante bi dafa bokk ci galsen ou bien yéen seen choix la quoi ngeen koy def non du choix du choix am na leen loo xamante ni boo ko bëggee rek mm. dangay bëgg mu jub quoi mais maanaam am na loo xamante ni du la neex mm. yow loolu noonu lenn rek nga ci mën a def jug kaas ko quoi mm. pour gars yi xam ni mooy loolu noonu du n'importe kii moo war a jóge fee rek bëgg a ñëw tasaare hip hop bi quoi. mais mais est-ce que loolu noonu mën na koo casser avec la manière. waaw mën nañ kaa casser avec la manière. Ah. waaw parce que ñun ñoo ngi koy def ci sound yi ñoo ngi def ay nem dropping mhm. ay punchline mhm. ay clash ay beef yooyu noonu mhm. loolu noonu manière la parce que maanaam boo dégloo sound rek yow di nga xam ni kii nii paragraphe bi man lay waxal mooy loolu noonu sans sans foog sans benn waaw manque de respect quoi waaw euh, nga jóge ci nga jóge li nga xamante ne mooy mooy li si xaar naa ko. Mhm. su ma juumul mise à jour moo moo ci topp. léegi mise à jour bi euh, euh, nu mu demee peut-être beneen bi soo muy sound bi yaa koy bind ou bien dañ la koy bindal. yi maa koy job. yaa koy bind. waaw maa koy bind parce que man moom gëw ma loolu quoi. Mhm. gëw ma ay joobal yii nii lépp lu may def dama koy defal sama bopp. Mhm. même bu ma ci débrouiller mu mu téema ay yël sax. teewul maa ko débrouillé sama bopp mhm. quoi. ndax dama dégg ci chroniqueur yi. Mhm. gars yi ne leen rappeur dëgg. Mhm. moo ko li muy li da koy bind. da koy dund. ko a jàll. yaa que dañ koy dund dañ koy dund lépp loo bind rek da nga kaa dund quoi. lépp loo bind da kaa dund parce que maanaam. rab bi ni mu la dikkee écotrip beeg yooyu noonu loolu noonu yow kese yaa ko mën a génnee sa boobu quoi ah. écotri moom tagg sa bopp yow kase yaa ko mën a génnee sa bopp parce que géwalu judu manam dalay tag nii rek hmm. pour pour pour lan neexal xew beek yoy non hmm. mais après yow yaay jay juddu màgg moy lo non meuna tag sa bop yow xam fi nga bokku carrément hmm. ken mun laa tag ku du sa bop waaw lolu euh, euh, lolu nonu euh, ñi nga xamanteni amna mu ñoo xamni dañ leen di bindal mais buñu ñu day def bëm par rapport ak yow mi nga xam da ngay bindal sa bopp foofu noonu différence bi mën nga cee ñëwaat ya ñi ñuy bindal ñoo nonu manam loolu nonu xam naa seen moyen moo tollul foofu fuñ fuñ mën a bindee mhm. son bu nice wala lii nii mais buñ ko génnee après day def bëm mhm. mais suite bi boo ko toppee suite bi boo ko toppee mhm. nga def son bi ñu interview la ni la son bi ko ko bind nga nga ni keneen quoi loolu noonu pour man daa daa rusaawul ko mais mën na bañ a nekk mën mën nga mën nga koo laaj mu ni man maa ko bind mais est-ce que amul feneen foo xam ne dafay feeñe quoi de retour de retour day feeñ de retour day feeñ parce que kooku noonu di la bindal tey man ngeen am problème mu génne di ni sound yii nii yëpp man maa ko job génne affaire yi maanaam après du mujj fenn quoi texte buñ lay jaay wala ñu bindal la ko rek may la ko gratuit mm. noonu la fay demee. Euh, balaa ñuy jóg fii. balaa ñuy jël li nga xamante ne mooy le vrai visage. Mhm. ci kanam bu ñu waxtaanee ba ci kanam. Mhm. di nga ma improviser ma xool ba xam sound bi yaa ko bind wala bind ko loolu pare nga. yee bu la neexee ah bu la neexee ñun amuñu lenn loo xamante ni dañ koy lii nii quoi naturel ko ah. mhm. waaw noonu la fay demee. bu ñu jógee ci mise à jour dañu ñëw ci li nga xamante ni mooy combat. combat waaw combat mu nekk son boo xamante naturel lañ dikkee naturel dañoo ñëw toog instrumental mhm. bi daw ñu mhm. invité ma ci mhm. invité ma ci combat bi ma gis loo xamante ni lii nii bu ma ko joobee nii day nice quoi dañu amul benn opportunité boo xamante ni gars yi dinañu mën a bàyyi xel dinañ xam ne booy yi dañoo engagé waaw parce que li waral question bi mooy ba ñu ba ñu découvrir euh, dem li nga xamante ne mooy YouTube euh, combat euh, combat clip yi nga xam ne moo gën a wala sound yi nga xam ne moo gën a moom la gars yi ëpp lu ñuy cons combat ci la bokk mooy loolu noonu mm-hmm. sound boo xamante ni sound bu neex a show la quoi bu neex a show boo yeggee concert public bi da leen di attiré quoi dañuy bëgg sound bi damay dox ci mbedd mi sax ñu jeg sa ay bit combat mooy loolu noonu mm-hmm, après loolu noonu da lay amal benn revenu boo xamante ni maanaam loolu noonu yow xalaatoo ko woon ci son bi quoi mm-hmm. waaw Euh, bu ñu ñëwee ñi nga xamante ne mooy groupe bi nga xam ne ñoom nga àndal ñu mm-hmm. bëri découvrir wu est ce que mën nga ci mën nga leen a mën nga leen a présenter ko defee ñi nga xam ne ñooy seetaan la vrai visage xam leen yaa groupe bi waaw groupe bi mu ngi tudd Divisa Mind mooy loolu noonu waaw ñu ngi fii waaw ñu ngi fii nii xam naa gars yi de ak ak revenu bi ngeen dikkee nii mooy loolu noonu moo tax gars yi mm. xamuñu leen quoi mais 2017 ba tey mm. waaw depuis sa maanaam mu ngi génne ay booy yoo xam ne booy tàng booy booy show mooy lool noonu. Mm. di yëngal quoi carrément. Mm. mooy loolu noonu depuis sa maanaam ay wan mm. ay Elial ay Safir ay Kamador mooy loolu noonu ay Paul. waaw gars yi ñoo ñoo ñoo ci biir quoi di bëggee ñëpp mooy loolu noonu dina wax respect. Euh, bu ñu jógee ci ci li nga xamante mooy combat ñu dem fur et à mesure alors diggante boobu après génne war nga fi li nga xamante ni mooy no time su ma jum def nga ko clip ak mooy edji euh, mais no time dañoo gis innovation bi nga xamante ni big xëch innové ndax bu ñu bu ñu bu ñu xoolee yeneen image yi ak bi nga xamante ni mooy no time macha allah ci côté image ci côté réalisation clip bi ci côté ci côté ci côté ba ci rab bi paroles yi dafa dafa innové xam naa balaa émission bi di jeex sama sama sama sama ki nga xamante ne moo nekk ci régie bi dina dugal li nga xamante ne mooy no clip no time est-ce nga cee ñëwaat. yeah no time ah moom mu nekk benn benn son boo xamante ne son bu nice la mooy lool noonu boo xamante ni moom laa gën a projet bi quoi parce que. daa génn def benn classement fii nii quoi mm-hmm. def benn classement parce que mm-hmm. maanaam biñ koy jox xam nañ ni son bii nii day def classement force mm-hmm. son bi day def classement parce que son bi bi ma ko tegalee sama groupe bi mooy loolu noonu dañu ma son bii nii moom lañuy def clip ci projet bi moom la ñuy njëkk def clip quoi moom mooy ibbi projet bi après mu ibbi ko mu nice ñu def benn clip boo xamante ni waa Black Magic ñoo ko ñoo ko ñoo ko filmé ay Momo ay Maodo mooy loolu noonu di leen jaajëfal mooy loolu noonu. ñu bëri ñu doon laajte euh, clip bi euh, ñu bëri ñu ngi parce que ñi ñu naan ñi dëkk ñi naan dëkk ñu gis mm-hmm. dëkk de. mooy loolu noonu gars dañoo xeeb seen dëkk rek mais am na lépp de. waaw Black Magic ñoo fi di ko tàngal ay maas foogum mooy loolu noonu gars di yëngal loo xamante ni mm-hmm. instant yii on rek gars yi gis lépp job bi waaw dina wéede waaw euh, mais ce que euh, ci fi ngay xamante ni moom ngay enregistré euh, ci label nga nekk ou bien dangay dem studio fay enregistré yi nga xamante ni mooy sound yi yaa essence yi nag nekkaguñ ci label quoi nekkaguñ ci label mais dañ nekk di prison yi ak studio yi mooy lool noonu mm-hmm. tey bu ñu filee ni studio bi war nañoo mën a jóob moom sound rek mm-hmm. dañuy dem prise foofu noonu mm-hmm. après après alhamdu quoi mooy loolu noonu waaw bëri na nga xam ne nee nañ Big Xeuss dafa jëkk succès motax du tok ci li nga xamanteni moy, euh moy moy moy label yi loolu lo ci mëna wax yeah du question succès nak du question succès parce que manam lepp loy job rek manam la la amal rendement quoi dem ci ben label ni, amal la rendement loolu nonu pour man manam da ngay perdre quoi label tamit mën nañ la lancer tamit waaw mën nañ la lancer ci manam ñu ñu ñu jar ko quoi ñu jar ko. gëm la mooy loolu noonu. jaruñu ko quoi. no du question jaruñu ko. da damaa gisagul label boo xamante ni doy na ma rek mooy loolu noonu ñu bëgg ma quoi. boo xamante ni lépp ñoo koy ñoo koy jël pris en charge quoi duñ la duñ doo dugg ba ci biir ba pare di am ay gàllankoor. Mm-hmm. dara di la téye parce que am na ñoo xamante ni ñooñu ci label yi. dangay jékki saay rek. Mm-hmm. ñun la diw jóge na fi quoi après mm. loolu noonu da ngay yàq sa image quoi man lépp lu may def. diw jóge na fi est-ce que est-ce que que est-ce que diw jóge na fi rek euh, loolu rek explication la. non du explication parce que am na suite bi boo ko toppee am na loo xamante ni mu ngi ci biir quoi. d'accord am na loo xamante ni mu ngi biir mm. parce que mën nañoo am problème yu ndaw. MC mm. bi jóge fa. parce que liñ ko def neexu ko quoi mais man lépp lu lu may def rek damay bëgg suite bi nice quoi. loolu noonu moo tax supposons man sama gis-gis. fi nga xamante ni mooy euh, Tivaouane am na ay label yu fi nekk. Mhm. mais est-ce que yow gis nga label boo xam ni convaincre na la te yaa ngi rêvé un bon jour nga nekk fi nga xamante ni mooy label boobu ci fi nga xam ne mooy Tivaouane. non Tiv nag am na ay label quoi am na ay label mhm. mais instant yii gisaguma label boo xamante ni mooy loolu noonu quoi. Mhm. moo ngi fi bëgg bëgg MC maanaam ñun lépp lu ñuy def rek. Mm-hmm. pour Tiv la quoi. Mm-hmm. bu ñu gisee label boo xamante ni jar na ko. Mm-hmm. mooy loolu noonu dañuy joob ak yow. fii fi nekk jaruñu ko quoi. non du question jaruñu ko. parce que label yi fi nekk maanaam ñooñu instant yi mënuñoo produire quoi mënuñu ñu produire. parce que am na maanaam lépp looy def rek maanaam am bëgg nga ci benn rendement. te man mooy noonu bu bu bu ma duggee ci label rek damay bëgg sama. samay joob di gën a nice maanaam dara du ma téye mhm. dara doo xamante ni ay kii joobal kii joobal kii maanaam man dong ngay joobal ma mën a joob mhm. lu nice quoi mhm. waaw. Euh, ñu am sa sound yoo xam ni euh, sama juumul fee nga ko prise fi nga xamante ne mooy Reptyle euh, ñu ñu bëri di laajte ba xam yaa yaa sa diggante ak Reptyle. waaw Reptyle benn son moo ñu fa yóbbu woon muy mise à jour. mise à jour waaw ñu fil. son yi ñuy def quoi moo tax ñu demoon fa mm-hmm. après bi ñu fa demee maanaam job nañ foofu noonu job bu nice gars yi jox ñu seen accord mooy loolu noonu mm-hmm. après suite bi gars yi ñoo ngi déggante contact yi moo ngi daw quoi. mais ba tey delluwaatagu leen fa. non delluwaataguñ fa parce que amagul beneen son boo xamante ni fil nañ ko pour job ko foofu quoi ñun moom studio jooy mm-hmm. dañuy fil na rek dem joobee foofu noonu quoi parce que bëggoo tamit maanaam di dem fenn tey. neexuloo quoi booy dem fenn rek na fekk mu neex la. waaw euh, ñu remarqué ñi nga xamante ni mooy mooy mooy art bi nga xamante ni mi ngi fii muy Tivaouane mhm. euh, mbalax maa ni ku ne gis na seen liggéey mhm. mais rappeurs yi dafa am lu xaw a des. Mhm. yaa ngi comprendre dafa am loo xam ne xaw na des te ñëpp ñu ngi koy wax euh, en fait da ngeen xaw a tardé quoi nga baal ma ci kàddu gi mais c'est quoi le problème. waaw loolu dëgg la loolu dëgg la parce que maanaam. amul fii tey benn grand boo xamante ni nekkoon na fii maanaam lu bu prouvé loo xamante ni tey booy booy TV bu ñëwoon rek dañuy dañuy ñëw rek waaw topp seen tànk quoi. wax lu am solo. gars yi fekk ñu leen fii mooy loolu noonu xaw biñ leen fi fekk ñoom bàyyi nañu rab mooy lool noonu mais booy bu ndaw bi moom fii fi te instant yi da koy yóbbu fu sore sori. Mhm. incha allah. mën nga ma limal benn mag boo xam ni euh, kii nii Tivaouane am na loo xam ne yaa ngi koy roy moom ci nga xamante ne mooy rapport yi nga xam ne ñooy nekkoon fi nga xam ne mooy Tivaouane yeah fii nii nii hmm. non gisaguma ko fi nag hmm. gisaguma MC boo xamante ni hmm. maanaam job na loo xamante ni maanaam man ma maa ngi koy lii quoi mën naa laa get nag jëlee si yow xam-xam mais amul ku ma fi roy quoi parce que seen wéy tracé wuñ ko naaj. demul quoi non non <laughs> wuñ ko naaj buñ ko tracé woon tey benn bi xës day ñëw rek. fëllam leer quoi mooy loolu noonu mm-hmm. mais dara ñoo ngi ci wéy bi di joob loo xamante ni maanaam bu génnee fii nii mm-hmm. force loolu noonu ñun ñoo ko fi njëkk a def mm-hmm. waaw euh, comme li nga wax euh, grand yi li ñu waroon def peut-être defuñu ko mais yaa ngi yow en tant que boy bu ndaw sa rêve mooy nga jël Galsen am foo ko jëlee am foo ko yóbbu yeah loolu day am sax day am incha allah mooy lool noonu hip bi nii dañ ko jëlee maanaam fi mu toll nii aj ko ci niveau boo xamante ni gars yi ko foogee sax saa loolu moo nekk suñu rêve quoi. Mm-hmm. Euh, macha allah kontaanee na bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy projet. Mm-hmm. Euh, ndax euh, mbër bu demee ci làmb ja. Mm-hmm. xelam lépp mooy lan mooy jël roi des arènes. projet yi est-ce que mën nga cee mën nga cee mën nga cee ñëwaat yaatalal gaay bi xës lan la bëgg def lan la lan la lan la war a def. yaa bi xës mooy mooy instant nag moo ci projet quoi. nii nii waaw moo ci projet code code 4 waaw code 4 bi instant mu ngi déroulé notin bi ci la bokk ADG bi ci la bokk mhm. tamit des na yeneen deux sound yoo xamante ni ñooy ñooy ci yoon bi quoi presque pare nañ mooy loolu noonu mhm. instant ñooy xool date rek pour mën leen a génne quoi. Mhm. waaw mais code 4 bi est-ce que gisoo woon nga génn nga nga nga nga daj nga génne woon leen nga comme comme laa ko mën a waxee sax nga génne leen du gën quoi par rapport nga koy génnee par benn benn. yaa loolu noonu tamit njëkk nañ kaa mayen quoi mayen noonu nañ ko mais maanaam suivi bi ngay topp quoi mm-hmm. parce que mën nga dugalandoo projet bi yëpp mm-hmm. après du la amal benn rendement. maanaam nombre de vues yi gars yi koy visionné mhm. loolu noonu du la amal benn rendement mhm. léegi boo ko jëlee daf ko par un mois un mois yi mhm. di nga di nga di am benn benn benn benn contenu boo xamante ni da lay dikkal quoi parce que essai nii nuñ ko def nii nice parce que clip bi essai moom ci un cas virgule cinq no time bi waaw no time bi waaw si no time bi macha allah waaw yeneen compte yeneen nombre de vues yi moo ngi gën a augmenté compte bi moo ngi gën a yokku quoi te loolu la ñuy wër quoi. Mm-hmm. loolu loolu moo tax ñuy géem tamit. Mm-hmm. compte yi tamit lu am solo la. am ko solo la mm-hmm. parce que mënoo ñëw def sa benn projet rek génne ko am benn un vue deux vues son yi di ko am quoi loolu noonu ñun. essence taxu ñoo jub waaw. code 4 daal essence moo fi nekk comme projet. waaw code 4 bi moo fi nekk comme projet am na yeneen single yoo xamante ni war nañoo ñëw. clip bi clip bi tamit am na bu war a génn. xam naa ci mois bii nii. mois bii waaw mois bi incha allah. clip bi mu ngi tudd Grip ma def ko feed ak oko quoi. ci code 4 bi la bokk. ci code 4 waaw instant yi clip boobu noonu moo war a génn. Mm. mooy loolu noonu après sound bi topp ci dernier sound bi ñu tëj projet bi xool yeneen single quoi waaw xool yeneen single ñu gis bi xëcc macha allah ak mature bi ah, bi xëcc ak ak ak sañ-sañ bi ñu nekk ci ginnaaw bi xëcc ñu ko wër encadrement bi ñan la yaa waa dibi sa maan la dibi sa maan mooy loolu noonu ay mag maan nekk fa ay esprit yi ñoo xamante ni maanaam lépp looy def rek ñoom dañ ciy dem ba jeex quoi ñoom ñëpp ay rappeur lañ wala non am na rappeur am na ay ménagement ñoo xamante ni ñooy gérer wàllum tey bi xëss fan la war a yéeg seen yi mu war a def interview yeeg yooyu yëpp am nga am naa ménageur waaw mooy loolu noonu mu nekk Birago gaa yëpp gën ko xam ci Bira quoi mooy loolu Bira dañuy gis souvent day nekk sa wet loolu tamit bëggoon nañ la ko laaj yeah waaw Bira moom sama lépp la mooy loolu noonu parce que lépp lu may def rek damay dem tegal kooko quoi après mu yokku ma xalaat quoi parce que maanaam moo la jiitu ci àdduna moom mm. ku la jiitu ci néeg moo lay wax waaw contact bi fan lay féetee ko mm. moo lay teg ci code li mm. la lii ak lii nga war a def lii ak lii bul ko def quoi te instant phase boobu lañ toll parce que âge bi ma toll nii maanaam dama koy soxla quoi dama koy soxla parce que ñoom ñoo la mën a teg ci code parce que lépp looy looy dund nii rek ñoom dund nañ ko ba passé waaw mais à part est-ce que am na keneen koo xam ne mi ngi waaw papa mooy loolu noonu mu nekk sam benn sam benn brother mooy loolu noonu tey Bira bu amee benn benn benn programme boo xamante ni da ko war a job quoi papa moom mooy dem gérer rôle ménagère bi mooy dem gérer concert yeeg yooyu noonu waaw. Euh, du ma toog yow ba pare te laajuma la macha allah public bi nga xam ni moom nga am macha allah yàlla na yokk sa morom yu bëri am na ñoo xam ne ñoo la jiitu ci aat bi mais malheureusement amuñu public boobu mhm. sa secret lan la. yes secret bi job la ah. job mooy loolu noonu simple mooy loolu gaa yëpp bëgg la. simple gaa yi simple loo de. non bi xës génnewul noonu. man man lépp lu nit di def rek maanaam nit koo xamante ne daa simple rek dama koy. def quoi non semplo boo ñëwee ci bañ boo jëg concert. gars yi dañ fay pour nga yéeg sax problème la ndax danga fay dem indi fa attroupement et tout. waaw loolu force la parce que maanaam sa public boo ko indee foofu rek. Mm. public yi yow la ñuy xaar ko yow la ñuy xaar pour nga yéeg ñoo may gunge ba ci kaw scène bi. si ñoo may gunge ba ci kaw scène bi nag nee na ma sa mm. waay instant moo des rabal. waaw mooy loolu noonu. après yëngal ci kaw ñu yëngal fële waaw loo loolu loolu tamit day attirer MC quoi day attirer MC hmm. mais boo ñëwee tey benn benn benn benn concert nii hmm. indi woo public indi woo dara da ngay ñëw rab rek après séant hmm. mais public bi maanaam boobu booy def son yoo xamante ni da leen di neex après ñoom dañuy am envie ñëw sa concert dañuy envie maanaam surtout sam booy koñ bi nii booy dama leen show loof lu bëree bëri <laughs> bilaay mm. parce que booy maanaam fépp fu may dem rek mm. booy dañuy ñëw mooy loolu mm. pren saa yi dañuy débrouiller sax jënd flamme mooy loolu mais loolu gars yi nee nañ ba wóorul de yee wóorul mais maanaam loolu noonu mënu cee ñàkk quoi parce que booy gaal seen dafa am loo xam ne ko laaj mm-hmm. ci kaw seen dakaa laaj quoi parce que maanaam benn booy bu ndaw taxaw ci kaw seen rek mooy loolu noonu faa mu yëngal ba gars yi xam ni kii nii maanaam booy bu tuuti la mais jëmm ji maanaam la gaay di xool mais moyen bi maanaam xamoo li ci nekk sax. waaw tuuti di jëm yaatu ci xel quoi. Mm-hmm. parce que loolu la tubaab naan il faut remarquer pour être pour il faut déranger pour être remarqué. mbir boo ci nekkee dafa am noo war a mel. am ba gaay dégg la ba gaay xam ne bi xës mi ngi fi te loolu moo manqué fi nga xamante ne mooy Tivaouane ak rapport yu ndaw yi. yeah loolu noonu maanaam mm-hmm. dafay manqué quoi carrément dafay manqué mm-hmm. mais bi Xeuss moo ngi fi ah mm-hmm. Big Xeuss moo ngi yëngal fépp mooy loolu noonu amul instant yi nii lu ñuy prouver mooy loolu noonu tiif quoi ñun instant yi ñoo ngi xalaat génn hors secteur dem yëngali foofu noonu ba gaa yi xam ne booy bii nii tiif la dëkk quoi mm-hmm. instant loolu loolu tamit mm-hmm. suñu ambition la mm-hmm. waaw. Euh, ñi bëgg ci moom euh, yi nga xamante ni mooy mbokk internet étoile TV Sénégal kii mooy Big Xeuch dañ ko war a jàppale jàppale bi nag mooy dañuy dem YouTube su ma juumul original Big Xeuch la fa def ñu abone like partagé parce que boo doomu teewoon la en plus li muy def bëgg na ko te gëm na ko nit nag li ngay def namm na ci nga xamante ni mooy Big Xeuch Big Xeuch ba bi xëcc ambiance bi bi xëcc nga xamante ne mooy population yoo xam ne gars yi topp nañ ci ginnaawam est que mën nañoo xaar loolu ci yow fii ak ay fan yu néew waaw waaw gars yi mën nañoo xaar mën nañoo xaar benn showcase boo xamante ni instant yi nii ñoo ngi ci dernier réglage yi quoi ci mois de septembre bii nii la waaw di wax gars yi nañ waaj loo xamante ni daa bëri doole quoi mm. parce que showcase bii nii maanaam mooy premier showcase boo xamante ni bi xës da koy teg quoi mooy lool noonu na ko gars wéet waaw di pare loo xamante ni mooy loolu noonu gars yi bu ñu ko dégloo dina xam mooy loolu noonu quoi booy bi moom ci yeneen niveau mooy loolu noonu waaw di ko wàcc ci permanence kii nii APR bi di wax gars yëpp waaw dat bi après dinañ leen ko jox gars yi mën ñëw quoi public beeg yooyu noonu ku ne xam na ni permanence ba gis nga ni mel dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a sensible varié bagage yooyu noonu yaa ngi comprendre yow ak sa ak sa ak sa ak li nga xamante ne mooy sa mooy sa mooy sa mooy sa mooy sa mooy sa public noo dundee foofu. yeah permanence bi mooy loolu noonu permanence bi maanaam borom xaalis. Hmm. ñoo ko defar quoi mooy loolu. Hmm. mais dinañ <coughs> jël benn sécurité boo xamante ni. Hmm. dinañ ñu mën a jàppale ci loolu noonu ba benn bruit du fa am benn drangement quoi. ñu def ci jàmm waaw génnaat ci jàmm. Ah, su ma la déggee baax dañuy ñëw rek euh, yëngal noonu toog way. après mu jeex amul amul amul amul ruube. <laughs> yeah dina am dina am ruube loolu mënu cee ñàkk quoi mënu cee ñaak gars yi dinañ yëngal ba ba ñu xam ni maanaam fii nii maanaam showcase la quoi dinañ yëngal mais teewul tamit sécurité yi ñoo ngi fa benn boy du déranger. Mhm. du yàq concert bi quoi. Mhm. waaw damay am mbégte ak yow toog. Mm-hmm. nga may freestyle comme li ma li nga xam ne moom la ñëpp miin ci yow di la seetaan fi nga xamante ne mooy Étoile TV aca ko defee bu baaxee foofu ci yow rek baax na fi ci man waaw mm-hmm. balaa boobu noonu dama bëgg a woo sam benn bro mooy loolu noonu ñu koy woowee papa moo xamante ni moo gérer ménagement bi quoi mooy loolu noonu waaw ñëw ma def benn freestyle rek yaa ngi gën a noo balaa balaa balaa balaa balaa ngay ñëw foofu xaaral ma am li quelques questions yi nga xam ne la ma lay laaj papa. papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay grand bi. Euh, ci loo ne. maa ngi nii rek maa ngi si jàmm. yaa ngi cool. waaw cool. Euh, sa digganteeg Big Xeuch. non Big Xeuch dafa doon sama benn bro boo xamante ne nii. Mm-hmm. dama ñëw rek mu ibil ma boppam quoi. Mm-hmm. jàppee comme jàppee ma comme rakam quoi. Mm-hmm. genre dafa ñëw tegal ma. tegal ma bëgg-bëggam quoi bëgg-bëgg àddunaam. d'accord léegi man ma bëgg see ànd ak moom quoi. Mm. fu mu yem moom neex moom. acca incha allah yàlla na yàlla lafal leen cat su baaxee foofu baax na ci man acca. yoon mi bii kay fa la topp ma ci raab yaay ji deey maa ngi las group bi takk dissident foog sa capitaine di voler ci jaww ji takk samay double doxu moom di dem rey nga las temps bi jaamu kees jaamu god du kenn ci yéen moom may boot géemu ten flow di ko diviser par douze même bu may tàcc ci group bi damay teg parcours wax fi dëgg nekk headers benn jëmm di teg full technique ci benn flow du kenn ci yéen moom may wax lu may def sama si lu rab day blow jobay fay moo tax sa MC Ndol boole ma poul de carte ma kil fi la vérité ci lu ma mérité big mu tàkk noodu dérivé nigga man yeah man frère waaw grand aca ñu demal non man moom gàncax <laughs> ah, mooy loolu. aja ah, MC bi ah <laughs> internet Étoile TV Sénégal noonu lañ defoon invité woon ki nga xamante ni mooy bi xëch bi kontaan nañ ci yow euh, ci li nga xamante ni mooy dalal bi nga xamante dalal nañ la ko fi nga xamante mooy le vrai visage euh, looy wax balaa ngay tëj looy wax li nga xamante ni mooy Étoile TV. yée gars yi maa ngi leen jaajëfal waat bu baax a baax a baax parce que déplacement yombul quoi gars yi gis nañ Mm. lim leen jaroo quoi mooy loolu noonu pour interview bi nii taxaw mm. di leen jëfal di wax gars yi ah mm. na gars yi dem abonné waaw ci Étoile TV like aimé mooy loolu partagé parce que gars yi ay doomu Tiv lañ mooy loolu noonu na gars yëpp jàpp waaw Tiv jëm ci kanam quoi. di amaat mbégte ak contentement ki nga xamante ni mooy Big Xeuch moom lañ dalaloon Cheikh am la fi nga xamante ni mooy la vrai village di remercier bu baax a baax sama caméraman Murit siar naa la bégge war la ak sama réalisateur nga xamante ne al alxaaji gasama mu tedd mu sell mi borom le vrai visage mbokk yi noonu lañ ko defee ak yéen ci beneen émission ci beneen numéro big up So sick on the beat Yo, what time is it? Why are you asking the fucking time? You gotta move on, bro. Gotta move on, bro. Yo, uh. يا منو ما ترى قدام للناس فوق السيستم سمعين دخول بالسودان بودي فلاك سامي فام واي بنداو مولا تيتال نيونا بوي نغاني بيك بول باك نغا ميدان كيستال لاغا تاكو نبي تو جي كول دما جي سوي تايان كو فيل سا خول بو بون برنغا نارا كيل سا بس ام سي مالا يوز فرام في ماركتينغ اي بريلج ما دب مانغي دوخ جي تاون ديك بيكا كينغ لاج درازا موي سام فول تكنيك داك ناس بابي جام دي ما تاني ميم بو ندا في في اي نيك جوب افري داي ميم بو ما جوب بوي دي ما داي after my death, def ci lumière mu tàkki lamp ñu fay ko ci waaj ma tere pour def passe tey mës ñu sant jobi fils nekk di def noonu gis bu dee sama ese ngay xaar di nga dee si biir foog la Fuck li nga foog fuck. la ba foog li nga sa MC ci pot Fuck sa MC to port. yaakaar mu dem ko du god yaakaar mu dem ko du god soo ngi er dóob never stop So I get dóob never stop flow bi lay kill mel ni paaka ci puur maa ngi lay me, mel ni baram ci dama leen sun man la ci rap game yaa ni nga gën la xaat ku fi jaay dee ni nga am nga kiil bul ma jaay biit ma la dàgte driit li ma nar a wax ëpp nañ na fee maa ni nga yaa ngi fee ma ni booy des classe fee dafa gu ma dara nota classe C xel du jàpp ñaar the tax No time wax di jëf noo taam la ma gaay sëf li mu war ci HUP bi dina sotti mais notta nga noppi gaañ leen ma dem my teemaan Yeah, I'm daj di dem jël sama yoon bopp rek moo ci des mam bég konti yi fees waxal sa MC mënu làkk du bëre ndax booy mënu wër comme toxicomane son na dugg comme Gelsman mënu ma def ni kenn mais dañuy def comme man foog sa commentaire négatif maa get those now is deep never give tontu forox du ma wann baat gën fi tuuti tere MC di faat big boo fi door dina ñëw di the doo dégg fu may rek laa may respect ñu may bàyyi xel lëna may tom one time for hater two time pigal I'm working high night ten day time because time is money and I show no time to lose Gembe bëri fekk góor jigéen lu tax ma mënu ma def ni yéen hypocrite wala lesbienne ënda maafe tëgal ma dóore my faasor laa wuteeg booy li boy? Then you velaa ba teg But then ni you nga di got the laa foog la Fuck li fuck linga, fuck. Yeah. Fuck foog fuck linga, fuck. Fuck sa MC ci Yeah. Fuck sa MC ci pot yaakaar my dem ko du god yaakaar ma dem ko du god I get up, never stop Søren gikk dømt over Flow blir kill, men put pakker ikke fort Michael er lal, men jeg bare har ikke tatt Dama leen sun man la ci rap gam a nigga gën la xaat Ku fi jaay dee nigga am nga kill Bul ma jaay biit ma te dakte drit Li ma nar a wax ëpp na 9 fee my nigga yaa feel